ñëw nañ fii aussi ci domaine industriel bi bi nga xam ne président moo ne nañ ko accéléré comme ni ko président conseil Sémou Diouf waxee domaine bi bi koy président di jël kenn nekku fi woon àll la woon rek quoi pâturage la woon léegi defar nañ ko ba nga xam ne moom sur 167 hectares yëpp am na ay industrie am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw ci installé wu am na ñu ñoo xam ne commencé nañ di produire mooy fi ngeen nekk nii usine bii ñu nekk nii mu ngi commencé matagul sax at dara mu ngi tabaxu am na yu bëri yoo xam ne noonu lañ demee accéléré nañ seen seen seen installation ñu ngi commencé di produir visité nañu ak yéen à peu juróom-ñaari usines juróom-ñaari usines yi gis ngeen diversité yi te am na ñett yoo xam ne ku ci nekk am na 1000 personnes fii am nañ plus de 5000 personnes junni juróomi eh, junne xale yi fi liggéey suba ak ngoon te dinañ dem ci ñaar fukki junne incha allah parce que li fi nekk moom mooy cent et quelques entreprises ñu ngi ñu ngi fiy tabax. am nañu trente quelque wax naa la trente fanweer ak juróom pare nañ ñu ngi ñu liggéey ñeneen ñi fukk juróom fukk dinañ pare déwén incha allah te yeneen yi fileeg trois ans dinañ pare ñoom ñëpp investissement yi nag ëpp na plus de cent milliards soo jëlee rek yenn entreprise yu gën a mag yi parce que gis ngeen sànq rek bi ñu demee ci usine bi nga xam ne day def boisson moom rek quarante milliards la usine bi ñu njëkkee muy defar ay ay natt yeeg di defar ay plastique yeeg yu bëri moom aussi mu ngi ci près de quarante gis ngeen yeneen usines yoo xam ne investissement yi daal am na fii solo dinañ dinañ doon domaine boo xam ne domaine bi soo ko boolee ak plateforme industrielle de Diamniadio dina def ne Diamniadio dina am euh, zone bi nga xam ne zone industrielle boo xam ne moo gën a rëy ci Afrique de l'Ouest